mooy dañu ñëwoon fii tey euh, piir seet si suñu xarit suñu camarade de parti Abdou Dieng parce que Abdou Dieng dafa nekk jàngalekat boo xam ne bii bu baax la taxawal ñu parti bi fii ñu ñëw seet si ko bi ñu ñëwee Pire nag dañu commencé remercier nañ fi le maire Serigne Mboup ndaxte suñu xarit la biñ fi dikkee aussi wax nañu li tax suñu parti jóg. mooy gis nañu Sénégal moo ñu ñor Sénégal defal nañu lu nekk kon war nañu koo fay bor bi ni ñu koy fayee bor bi nag mooy ki nga xam ne bile Sénégal dénk na ko seen confiance mu nekk seen serviteur du président Macky Sall li muy def dañ ko ciy jàppale ci xëpp suuf dañuy jël bilan bi ak li muy jéem a def ñu jàpp ci pour que la mu bëgg yóbbu Sénégal mu yóbbu ko fa donc kooku mooy ñu fedd li dëgëral suñu ànd ak moom bi ñu paree ci dëgëral suñu ànd boobu waxtaan nañ fii ci piir lu jëm ci élection législative élection législative li ci wax lu leer la dañ ne ñun dañ nekk parti boo xam ni duñu parti li gars yi di wax cabine téléphonique ak di toog ndakaaru di wax ci ay rajo ñun Sénégal dañ ko xam dañ fee dëkk duñu ay politiciens de salon man dem naa def sept communes dugg ci biir village yi mu mel nii fu ma jaar espèce bu mel ni ku nekk ci campagne électorale la ma déglu population yi xam seen métit xam li ñu bëgg def ko Touba def ko Mbacké ñëw terminer ko par mitin bu mag méga meeting à Darou Moussi ñëpp teg ci seen bët communes yi ñoo ma wuy ci population yi nga xam ne bi la defaloon naa lu baax ñoo ñëw wuy si ma ca tey ñoo toog di ma déglu ba léegi ma dellu si ñëw tey di ko def piir war koo defi Diourbel war koo defi Louga war ko def fu nekk parce que boo nekkee allié président doo toog Ndakaaru rek di wax da nga war a dugg ci biir population yi pour fexe ba bilan bi nit ñi xam ko xam ne am nga mbooloo nga wax leen dëgg pour que bu ëllëgee ñu dem bindu ji aussi pour que ki ñuy woteel ñu mun ko wotee pour que li ñu bugg si yóbbu Sénégal ñu mun ko fa yóbbu loolu itam li tax ma jóg ci la bokk fii bi ñu fi dikkee dox nañ population aussi ne nañ dem bindu ji parce que nit ki boo àndee ak moom di ko jàppale amal déjà carte d'électeur pour mun fa dem wax nañu tam Abdou Dieng bi ñu fekk ne ko Abdou suñu parti bii bul nu ci propagandal bul ci wax luñ mënul bul ci nax nit nekkal ci dëgg ñi gëm dëgg dañ la fekk te ñun dañ fi dellu si jigéen ñi nga xam ne bi ñoom nga àndal nga xam ne bi lay ñu takku ñu ñu nangoo liggéey fi ñëw pour defal leen formation comme niñ ko defee fépp ci biir Sénégal waaw waaw parce que ñaari ñàmbi jeeg affaire wu saabook dimbali leen ci mango jeeg affaire yëpp dañ leen dimbali ba ñu am fu ñu jàpp pour yokk seen koom-koom parce que ñun fekk ñu leen ñuy nelaw dañ leen fekk ñuy liggéey kon dañuy ñëw rek pour jëm leen a dolli parce que loolu mooy sens noble politique politique du wër rek di wax ak di naxaate ak di wax naka sadul noonu politique da ngay ñëw di faj problème askan wi di leen déglu di leen wan ne ay citoyen lañu te dañoo war a bokk comme ñëpp yooyu daal leen fi ñëwoon pour waxtaane ko ak waa Pire ca bu yàlla soobee yàlla dinañ fi ñëw aussi pour defal leen formation di ñaan nag suñu borom mu dimbali ñu waaw mais législative yi man wax naa leen sànq ne leen comme dañoo nekk ci alliance ak président Macky Sall di yor suñu parti di ko taxawal ñëpp gis ko ci biir Sénégal xam ni de mi ngi wër Sénégal di taxawal boppam léegi boo nekkee ci alliance da ngay waxtaan ak ki nga bokkal alliance bi ngeen waxtaan naka ngeen mën a demee ci élection législative yi bu fekkee mën nañoo ànd dem ci élection législative te duñ ko yàqal loolu mooy li ñu gënal mais suñu gisee ne list def coalition bi yombul ca itam buñ ci demee mën nañoo fexe ba électorat bi nga xam ne bi ñun am nañ ko ay maire am ci ba moom mu ñàkk leen mais ñu préférons ñun comme dëkk nañ ci dëkk bi taxawal nañ suñu parti ba mu dëgër ñu defal suñu liste pour dem ci élection yi bu ñu mënta déggoo ak ñoom ñu préférons dem ak suñu liste bopp wuti ko parce que gënuñu nit ñi gënuñu ñoo dëkk ci dëkk bi gënuñu ñu koo xam dàquñu ñoo politique te bu ñu nekkee ci dëgg bu ñu tëkkatee suñu loxo nit ñi dañu ñu voteel